ñu ànd ceeg El Hadji Ahmed Aidara xel dal na da ca coronavirus ja tribune yéene kaa ne dama ne la poroxaan day ah na nañu feebar ba day dëgg la ndaxte Serigne Mountakha Mbacké Bassirou day waaw daal di nay dalal na xelu sénégalais bu baax a baax la ko tijee yéene kaa ne lu jëm nag ci wàllum aju màggalum poroxaan googee waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké day ah nee na xalif généralu murid yi la Serigne Mountakha waaw xam na li mu war a def bu baax a baax te nag am taalibe daal la war a jaar parce que jëmu ji tedd ji nag daa soxlawul ay xalaat kenn waaw le soleil yéene kaay ne coronavirus soojee waaw amul kenn koo xam ne kon ku bees la ku ñu xool jàngoro jo kon dugg la waaw parce que nag fukki test yi nga xam ne kon def nañ ko yëpp daa négatif amu kenn koo xam ne kon jàngoro joo jee daal dina lay dugg alhamdulilahi rabbil alamin ramata danfaxa madame ba di directrice su roi ba doye te hôpital ba ca Géejawaay waaw nee liggéey baa ngi ni lay continuer normalement activité ña nga cax ginnaaw nag ba ñu jëlee kon kookee nga xam ne daa feebar ba daal di yóbbu day waaw bërëb bi daal dinañ koy pompe désinfecté ko benn ñaar daal dinañ koy raxas nag ba mu set wi wépp lépp léegi normal vox sobi li ne coronavirus joojee waaw nguur gi dee dañoo tiit waaye xalif généralu mu di jëte dalal na xel ya ndaxte Serigne Mountakha waaw nee na Serigne Touba du nangu mop jàngoro ju di mel di fi tasaaroo déedéet Serigne Mountakha ne nee gis ngeen ah moo ñu gën a xam sëñ Muntaxa ñu gën a xam sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké ne sëriñ Muntaxa day ah mooy kaw suuf dëgg la kon nag ay ñaanam daal war nañ koo mën a gëm mbake ba lay sa yéeni kaa ngi ne Moussa Baldé ministre agriculture waaw bañ ko defalee test ba daa négatif feebarul day moom monsieur le ministre alhamdulilah laast waaye médecin yi daal xam naa ne ni ñu géré wàllum crise gi waaw moom na ñuy naqarlu day enquête yéene kaay ne lu jëm nag ci wàllum coronavirus coojee waaw giraawaal yi mën a dem ci wàllum tourisme ak dem ji transport aérien <coughs> boo sàgganee fa ñu jëm day nata am ndox de maar waaw waaw Mbeng xam-xamam daa màcc jëm kon ci wàllum tourisme ak lu ni mel nee na gis nga crise su feebar bi lée mën naa tëj ay compagnie yu ndaw yu baree bari lu mel ni ay Air Sénégal maar di coow la coow kay si ko yéene nee na ma nga am na ci diggante état Sénégal ak SAES e seen négociation ba waaw kuréel gi njaboote syndicat yi jàngalekatu université yi waaw dañoo daa ci buntu Cheikh ba dem maar di taali terminé yéene kaay ne la leen boole de mooy nañuy xamal na leen ne leen président de la république waaw day continuer am sañ-sañ nag di fal recteur président mooy fale évidence seene kaay ne waa nag loolu la bañal président de la république maanaam sañ-sañu fal ab recteur vingt quatre heures yéene kaay ne diggante waa SAES ak waaw guerre ba dana am kay biir APR la am dëgg laa ubbil critique ne ñu Mimi Touré de yéen a fippu ba de yéen a ba de révolte na de mi mee ko yëkkati parce que dañ na yoonu boppam femme ambitieuse la Mimi daa ba léegi nii dana patt pataaraa la wax waaye bi yoon de daa yóbbu Baara Ndiaye ca kanamu tribunal ba laa ilaaha illallaah ndax Baara Ndiaye dane Mimi Touré ngi defar ay réseau direct ah da cee jël lu tolloo juróom-ñaar la wax laa ilaaha xew le quotidien yéene kaa ne xeex bi dox ci diggante Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye waaw suq ya démb dañ doon xeex maar di taal léegi ko yéene kaay na dëgg la dama ne la ak conférence de presse kon la ñu organiser ca Parcelles ngir waxtaane fa nag daaneelu Ahmadou Ba moomee waaw waaye naka Mamadou Gueye jël kàddu commencé wax ay ndaw ne saax daal di ko dugg ca biir salle maa la ko wax mbir ba karabiné wu ca xoog doorantey kurpe ña naaw sandante chaise ya saagante ya maar di taal lu ne ca biir salle ba laa la wax tribune yéene kaay ne man kay maa lay expliquer nag machine bi Bara Ndiaye ci kaso bi léegi ay laa yi la la tey troisième mandat bi box bi ne Alassane Dramane Ouattara di président Côte d'Ivoire tey nee na def troisième mandat alhamdulilahi rabbil alamin direct news waaw nee dellu naa ginnaaw ci sama troisième mandat bi jeexal na gi ne juróomi fan mars bis bu la ca Côte d'Ivoire dëgg la ñii dañuy dugg ci histoire am sa way wu di cay génn ñeneen ña des exclusive yéene kaa ne troisième bi nga xam ne Alassane Dramane Ouattara dani teg naa ko day bloqué na Ouattara ca WhatsApp ba de maar day taali Alpha Condé ma quitté groupe ba nag am na beneen président boo xam ne moom daa désinstallé application WhatsApp ba eh way samba Dakar Times eh! Alassane Dramane Ouattara mi ne kon dellu na ginnaaw ci troisième mandat waaw di président wu Côte d'Ivoire a eh! mbaa du Macky Sall mi ne kon waxal indirectement ah! moo ma ca jaaxal la jaaxal nit ña kay 24 heures yéene kaay nee na dàq nga xam ne kon dàq nañ ko soos sa job Dieyna am 17 ans ne Jóob a ko wanu loo lor maar day taali waaye Jóob tamit tey xam le na ne Dieyna ak njabootam gi le ñoo ko jàpp kon di ko santage libération yéene kaay ne en tout cas coow lale tey de la ca lëndëm bari na de évidence yéene bu iseg waaw nee na dañ koo montel ab ku laa wax dañ koo montel ay image yu waar la ñu yónnee njabootam nee ngir di jël ci moom xaalis bu bare bare bare jabaram ji nga xam ne nag moo jiite woon iseg tey maanaam Jóob te jëkkër yéen i kaay gi ne madame moomee nga xam ne xaalis ba yëpp la doon jël kon di ko jox Wally Seck eh way Samba waaw jëkkër ji nee moom woon te mbir mi de madame Diop a ne kon ñaareel ba doy waar la doy waar kay l'observateur nee na wàllu mi ne day ah, rapport bi nga xam ne département d'état américain ñoo ko génnee waa FAO day kàcc yi nga xam ne kon nguur gi daal dinañ koy kàcc nag ci lu jëm ci wàllum ceeb le feeñ nañu de nguur gi feeñ nañ point de tonne allahu akbar 2019 bitim réew indi ko ci réew mi ci yàlla waaye nag xoolal gis nga ceeb boobee ak lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri buñ fàtte pétrole bi rek que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat moom dañ ko fiy tere boo paree ma ne la tëjal ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf coronavirus bi ku yóbbu am ci tiitaange professeur Souleymane Mboup moo ko wax wax jàngi ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéenekaay bi professeur Mboup fondateur institut de recherche en santé de surveillance épidémiologie et de formation bu jam ñaajo yéenekaay bi dañu bu yàggul ci la jóge ci réunion boo ñoo ko coronavirus bi waree su ko caaxaane benn yoon yoon wi kilifa yu Sénégal yi jël ngir di xeex ak coronavirus bi professeur bi ne xel mën na caa daal ndax lu efficace la l'observateur nañu waaye ci kaw loolee waa SAMES di syndicat gu jaboote ay médecins fii ci Sénégal ñoo ngi lu bay sàkku ci kilifa yi ñu ajandi lépp lu dum ndaje muy dajale mbooloo ci réew mi moo xam xew-xewu diine la xew xew politique baa xew-xew bu mu mën di doon ci la Sénégal yi ñoom waa SAMES dafa ñaawloo ko jébaane ni kilifa yi gàllo wàllu wér géram gi ci réew mi bëgg a jàmmaarlo ak coronavirus bi gis nañu ne xeexin wi des na ak cuune da cee laxasu Amadou Yeri Camara ak i gaayam ne li koy firndeel mooy cas coronavirus yi feeñagum ci réew mi hôpital yi ñu feeñ personnel de santé ba fa nekk taxawuñu leen taxawaay ba war waa SAMES la Sénégal dañu fàttali ne ñoo ngi sàkku ci njiit réew mi mu jël dogalub reporté bépp xew-xew bu ay nit di daje ci réew mi Sud Quotidien gis ne loolee du yomb défi bu mag la nar a doon ci Macky Sall ne xew-xewi diine yu mag yi am ci réew mi ak fagaro gi ñu war a fagaru ngir jàngoroy coronavirus bi bañ a law ci réew mi mbir la muy jafe li jënti ci njiit réew mi ci ñeenti nit yi coronavirus bi feeñagum ci ñoom suur soi mi ngi wax ne kenn ki di doomi Angleterre bi toll ci fanweeri at ak ñett ci Sénégal gi lay liggéey waa Nations Unies lay liggéeyal bi nañu moo di ndaw si te anniversaire ba bari woon ci organisation internationale de la migration te fu nekk li ñu ci dëkk bi dem ci anniversaire ba ministre de la santé Abdoulaye Diouf dañuy wax ci xët mu njëkk Soleil national ne bu weesoo ñeenti cas coronavirus yu ñu gisagum ci réew mi ba fi nekk nii amul beneen cas bu ñu fi détecté fukki test yi ñuy def démb amu ci benn buy wane ne kenn ci ñoom amee na coronavirus bi vox populi lañu état bu Sénégal nelawatul ba yandoor ndaxu jaaxle ci corona bi waaye xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mi ngi dalal xel yi les économies démb la ca cérémonie officielle bu màggalu poroxaan gi mu doonoon ci teewaayu ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye fa la porte xalifa bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre waxee ne Serigne bi nee na askan wi dalal seenum doyloo ay ñaanam ndax fi mu yegg ci yàlla moo ko may muy mën a xam lu ñu dul xam le quotidien nañu moom porte-parole xalifa général des mourides di sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadar wax ne ci lu jëm ci xew-xewi diine yi ñu bëgg a tuxal ndax coronavirus bi sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadar ne ab taalibe gu amuk taalibe du digal ab sëriñam lu mu war def laatir bi nañu def nañu màggalu poroxaan gi démb waaye li ñu ci doon ragal ci corona bi dara amu ci sëriñ Muntaxa mi ngi dalal xel yi enquête dina kaay nañu jàngoro ji mu di coronavirus bi bu dakkul li mu a yàq ci wàllu tourisme Mbengue di ko xam-xama màcc jëm ci wàllu tourisme maanaam expert en tourisme di ñu wax ci enquête ne kay ne mbir la moo xam ne bu ñu ci teelutu wut saafara compagnie yu ndaw yu mel ne Air Sénégal mën nañu fee doxe naax saay amul kenn koo xam ne amaat nga bile jàngoro ci Sénégal le soleil ni fukki doomu aadama la ñu testé ngir xool ndax am nañ bile jàngoro am déet waaye bañ leen testé ba noppi test lépp négatif le témoin ne jàngoro gi kon ma ngay dal ci mim réew ndax amul benn jéego boo xam ne mu ngi koy def ci Sénégal ginnaaw ñetti cas yi nga xam ne lañ ci nemmeeku loolee tax ba Mamadou Talla ne tëj l'école yi moom xalaatu ko ñàng meeg ñàngale mi day wéy ni ci mim réew libération ne ginnaaw fukki doomu yi ñu doon jox test ne dañoo amee bile jàngoro ginnaaw test gi amuñu coronavirus rax ci dolli ki ñu doon doon wax naan dafa am biir jàngoro te dara jàmm loolee lépp dëgg lalu ko Souleymane Mbuub njiiti IRSF ci l'Observateur ne mbiri kay jar na nag ci mim réew ne dëgg sax kuréel gi ëmb yi ci réew mi ni la ñu bëgg mooy lépp luy mbooloo moo xam ci diine wala ci wàllu politique ñu dàq ko ci mim réew l'Observateur yamu ca ndaxte nee na ginnaaw cas suspect yi ñu nemmeeku ci Géejawaay ak ca Kaolack askan wi nag nelawutundu ba yandoor Vox Populi Le La Tribune ak Walfadjri xëy yóbbu ñu poroxaan ca màggalub Maam Jaara gi lool ci waxtaan wi ba tax état bu Sénégal tiit la def ci mbir yi ci mim réew waaye xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké ma ngay dalal xelu askan wi ndaxte nee na Serigne Touba du seetaan mukk ab musiba di raw ci Sénégal rax ci dolli lépp loo xam ne jàngoro la ci àdduna wërngal këpp diine maanaam islam mën na ko saafara yëglekaay bi jox kaddu ko kenn ci taalibe yi ne sunu naataango yu vox populi Serigne Touba mooy sàmm soxna maam Jaara Buso mooy protéger loolee tax benn musiba du jalaañoo ci mim réew la tribune ni poroxaan démb dëj nañu jàngoro coronavirus gi ci suuf ndax sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides démb dalal na xelu askan wi yéeglekaay bi ne jëwri gu ñuy dénk wàllum mbéy meeg lépp lu ci ajo ci mim réew lu waxul dërëm xoriw ko maanaam dara dal ko ginnaaw li nga xam ne lañ doon tuumaal ni ak tiit ci jàngoro gi nga xam ne mooy coronavirus lan leen ginnaaw seen salon gi ñu amaloon ca Paris la France Le Quotidien xëy jox kàddu gi ku yor kàddu yoonu murid di Serigne Abdou Khadir Mbacké mi yëkkati kàddoom ci nga xam ne ñoo naan nañu dàkk bépp xew-xew dina ci mim réew Serigne Bass ni du muy xamal sëriñam yoon wu ñu war a jaar xalif bi tey ñu fekk ci Walf Fadjri lépp loo xam ne saafara la am ci jàngoro ci miim réew rawatina ci àdduna wërngal këpp islam moo yore saafara laas ne en tout cas médecin nekk ci réew mi bégguñu benn yoon ci Abdoulaye Diouf Sarr ndaxte nee nañu naru taxawee ci bile jàngoro du dëgg du yoon ndax li ñuy sàkku ak li ñuy gis ci miim réew mel na ni yàlla ak yàlla ci réew mi ne naka la ñu mën a waxee ni dañuy faj askan wi te mboolemu l'hôpital ak dispensaire ci miim réew jumtukaay yi war dëgg bi ne Aminata Touré daa plainte Baara Ndiaye maire Mewane yéeglekaay bi ne Baara Ndiaye daa tuumal Aminata Touré ni ci benn bës kot lu toll ci juróom-ñaari fukk ak ñaari chargé de mission ak i conseil la samp kàddu yooyu nag moo naqari Aminata Touré ba tax mu kalaame ko ci wàllu bi yoon réew mi quotidien ne Aminata Touré yóbbu na ci yoon Baara Ndiaye ndax jàpp na ni dana ko tuumal lu mu deful critique ne Aminata Touré njiitu CSE alu na te Baara Ndiaye moo fa jaar ba tax jamono ji nee na nag dootul bàyyi ci dara mu sedd ci mim réew ko wokkati mu xuri la les fa mu am dëgg na nag moo ca Parcelles Assainies diggante ñi far ak Amadou Ba ak ñi far ak Mbaye ndax ci xeex bu tar lañu soobu niki démb Vox Populi ni APR Parcelles Assainies soobu na ci fitna ndax gaa yi far Ba ak gaa yi far ak ñoo doon rag rag gu metti ba ñu bëri ci ñoom jamono ji ñoo nga ca l'hôpital kuréel gi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara kawe ci miim réew dañoo gedd ndaje gi ñu amaloon ak Cheikh Oumar Anne miy jëwriñ gu ñu dénk wàllu ñàng mu kaw mi ci mu des loolee te loolee nag la jàngalekat yi ci miim réew ne bëgguñu koo dégg tey ni ki ëllëg vox populi ni jëwriñ gu ñu dénk wala ñàng mu kaw ma ci miim réew daal lànk kaare ni du jëfee bëgg-bëgg saes ba tax saes du mooy ndaje yi génn saal ñu génn ci loolu dugg ci coowal Diop Iseg l'observateur ne plainte yaa ngi jalaañoo diggante Diop Iseg ak Dieyna Baldé libération ne en tout cas coow li jóolee diggante Diop Iseg ak Dieyna Baldé li ci lëndëm bëri na lool l'évidence Mamadou Diop Iseg ci l'évidence ni mbiri gudd gàtt ab coup gu ñu def jëmale ci koom Ismaïla Sarr jamono ji lii yéeg na gaynde Sénégal yi stade quotidien yi ginnaaw taxawaay bi nga xam ne am na ko seen janoog équipe bu Sadio Mané bi di Liverpool Ismaïla Sarr nag léegi mu ngay gën di dëggal boppam ci stade yi ñu bàkku jëm ci làmb ji fekk fa tafaateen borom taq ci rip mi nga xam ne ponkal yeeg espoir yi ci làmb gi yëpp nag moom la ñoo moytu maam lees ne li tax na ñu koy moytu ñoom mbëri xam nañu ne tafaateen moom du ñeexub ñebbe ndax ku ko jël jël sa musiba sóoru faal ni mbëri nag neexul ba neexul waaye nag lu yomb kott la ñuy wër ci làmb ci réew mi Abdou Bakhoum ne borom taq ci rip ku ko